parfois nit dafa war a di jël recul parce que dama xool Médina ma gis yu ma neexul ay doomu Médina yoo nga xam ne non dañu jaay seen bopp quoi man comprendre ma am na yenn yoo xam ne xam nit dafa am yu muy bañ maintenant man du ma naññ kenn parce que ku nekk di nga ñëw bay sa wàll dem mais nous on veut Médina propre et prospère. man mooy sama devise ma léegi ci loolu laay dox ku ma woo nag ci ñëw jàpp liggéey pour maintenant set prospère nit ñi am sutura parce que Seydina Mouhamed je suis partant mais ku ma woo ci leneen soxlawu ma ko. daal maintenant Moussa Ntolo fii nga génn euh, def ay sorti wax ak booy mais depuis loo xam gis la nga dégg génn wax ak booy mais xam nga da wax ñu mën a dëgg yow law yow balaa may wax sax xam nga fi ma jëm kii waxi nopp est ce que loolu nga donc. am na yenn yoo xam soo waxee da ngay dem ba sof nit ñi xam nañ fii métti mais fii métti nag ah da ngay ba xeex ni ñu métti est-ce que comprendre mais munu ma fi dëkk juddu fi yaroo di wax Médina dafa war a set mais maintenant dafa war set je l'ai dit plusieurs fois devant le maire de la Médina am y a des témoins conseil municipal moo tax damatuma conseil damatuma fenn. parce que da ngay sonn aussi ci yoo nga xam ni dina am benn répercussion léegi suñu bëggee man waxuma pour nit jóge fi wala pour nit toog mais nañ leen seetal suñu médina mais c'est le minimum un environnement un corps sain dans un environnement sain. bu mel naa set la la ñuy def. waaw mais génn di ko nettoyer ba mu set du leneen. pourtant le maire mën nañ ci woo pour ñu génn set. chaque premier mois du semaine euh, du mois mu woote ñëpp génn si calendrier bi nga xam président moom la woote. non mais loolu c'est chose man j'encourage le maire mu taxaw ci loolu c'est important mais Médina léegi comme caaro yi ngeen baax ma ci expression euh, ñu gis Médina ko organiser rek wala la diplôme euh, lan mooy secret association yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk Médina di organiser ak Paco Jackson. parce que xam benn jour mos naa def benn sotti ma man yàlla dimbali na ma ba man du ma maye di caméra wala di wax di woo ay ay site di di ko taxaw di ko wax lu waay def ci lu baax yàlla mooy xëcc nit ñu koy seede foo nekku koo gis nag mu décoré ma am na fu ma jaar ak ñoom ci teranga di sutura yàlla loolu rek moi je suis médinois et je suis fier Seydina Mohamed Médina ma gënal man. à part Médinatul Munawwar barke alxuraan Médina bi moo ma gën foo gis parce que. ok euh, nga nekk observateur gis ne ñu ngi jëm ci ay élections législatives yow ban gis-gis nga gis ci liste yi nga xam ne am na parce que xam naa ne tu n'es pas dans le mais am nga loo xam. non li ma xam c'est simple dañuy indi changement élection présidentielle ñu ne dañu bëggoon un changement radical mais donnant. à ah, ces, ces, ces, ces, gens qui ont gagné les élections une majorité confortable mu changé cinq ans bëriwul mais pour la ñu jógee ci élection y a eu quatre-vingts morts ah ñu xeex pour changement ba pare ñu bëgg leen daaneel assemblée mais amul sens pour que président Diomaye Faye woote ci changement bi mu bëgg mais il faut que ñoom ñoo am majorité man nag. nekkuma fenn certes j'ai un penchant j'ai de la sympathie pour Ousmane Sonko mais suñ ma wooyee ma jàppale leen ñu faxas Medina ko fi taxaw. waaw hmm? ah? faxas Medina dina yomb. waaw ah, yow daal Jackson ngay waxal de Law da nga ma fàtte. non non fàtte ah euh, bi Cheikh ba defee fii Proxime li gën a fi mës na génn ci Medina dans l'histoire politique de la Medina. waaw ah, gars yi am na loo nga xam ne man seen doom laa su ma génnee day neex de. te yëngu. ñu xam ne yow li wax Médina moo dee sa xol. waa Médina nga dee seen xol. loolu kenn du ko laam-laamee dëgg la parce que nee nañu wax ne ku bëgg nax nax nax nax Paco da koy nax ci Médina mais da koy nax ci nax bu ko neex. ñu war a euh, tabb ay ay député yow yan député médinois nga gis ci biir nga xam ne susceptible la ñu nekk des dans les listes. parce que man perso gisuguma liste yi. dama wax rek te yàlla tax. yow soo ma su ngeen ma posé wul woon question bi xëy na am na ñu may sollicité nag mais pour l' instant à l'heure actuelle gisuguma liste bay wax ni que ni naa jàppale diw mais je sais que man je suis prêt à accompagner la majorité mooy ñi gagné élection pour ñu am majorité assemblée pour mën a dérouler seen politique parce que sinon ça n'a pas de sens que élection am bu yàggul amul sens cinq ans nag yàggul nañ leen may ñu ñu déroulé mais su fekkee ni que déroulé bi doxul mais ñu faxas ñeneen ñëw adduna noonu la taxawee Macky Sall n'est-ce pas il a fait des réalisations extraordinaires mais biñ ko waree faxas dañ ko faxas fii Sénégal Abdoulaye Wade jaar na Senghor jaar na fii ku liggéeyul ñu ne la mu ko ci pay mooy lu tax jàppoo beneen président ñemewu taxaw déclaré ni dafa bëgg a nekk président ah pour remplacer ah pour remplacer ma ah dina métti de. sa xel dafa nekk nekk député wala. ci li nga waxee dafa mel ni. sincèrement ah, bu la sëmboon bu la Pastef dugaloon ci liste bi est-ce que bokkoo ci liste bi sax. non sincèrement député intéressé parce que je pense qu'il y a suffisamment de Sénégalais. ñu mën a remplir ce rôle mais Médina sama gox moo ma ñor moo ma soxla te man dama ci am ay ay doy waar loo nga xam ni barke Seydina ba ci kanam barke Seydina Mohamed ba ci kanam li ci kanam raw li am na la ma xam sa xel mi ngi of course euh, lu dul di kontaan vraiment di remercier di saisir occasion pour remercier encore une fois Boubacar euh, Diallo le président de de pour initiative mu am au profit des enfants parce que xale yi mënoon nañ leen bàyyi ñu traîner pendant les vacances mais da leen jël dajale leen ñun aussi ñu accompagner ko comprendre idéem et vraiment à travers de beaucoup d' activité atelier en civisme citoyenneté informatique sport culture bari na daal li xam ni dajale na xale yi sensibiliser leen même ci informatique c' est juste pour dire que Boubacar visionnaire la parce que gis nañ ni fan yu mujj yi. Euh, discours du président c'est autour du numérique dem ba bu ko def droit Boubacar euh, anticiper ci loolu donc du ñu def lu di ko féliciter di ko remercier permettre na aussi maison de la culture du Sessec mu dund pendant ses vacances di wax encore une fois activité bi bu mu ko yemalee ci vacances yi nu ko ubbi ba année scolaire parce que xale il faut nu accompagner leen pour nu nekk des citoyens modernes donc di waxaat jox suñu engagement suñu détermination pour euh, pour accompagner ko pour réussir activité am di ko moom ak militaires yi ak partenaires yi ko soutenir yëpp et surtout les éléments français au Sénégal comprendre nañ concept euh, armée nation donc di leen féliciter di leen remercier ak mille maillots yi may xale yi kit scolaire et gis nañ fan yi yëpp yi dem nañ au niveau du camp euh, def des activités sportives donc vraiment di leen remercier di remercier aussi les amis de la presse pour seen accompagnement seen appui de tous les jours pour les programmes d'activité de la maison de la culture Douta Seck organe nu organe bi yéen laa bëgg a remercier vraiment peut-être dama xaw a mais vraiment di leen remercier pour liggée bu rafet bi ngeen def pour la promotion des activités de la Maison de la Culture de Sassek ak activités yëpp de développement pour la Médina vraiment j'ai Médina j'ai la Médina au cœur merci à toute la population médinoise. ok man y a une l'esprit et je ne peux pas la poser je la poserai mais c'est en wolof pratiquement gis nañ ne bi ñu ñëwee mais gis nañ activités yi diversifié na waa maintenant sentir nañ bopp biir li nga xam ne mooy Douta Seck. lan mooy secret. Ah, bon en fait dafa am la nga xam dama ko partagé ak waa Médina euh, avec des parents yu teel gaañu bon j'étais à Dakar mais après ma dem à Pikine euh, dans des quartiers un peu difficiles et gis naa ni bu ma suivre c'est grâce à l'appui de certaines de yenn nit ya nga xam ne comprendre nañ xale bu ñu ko jàppalee mun na dem de l'avant donc euh, bor bu may fay la en quelque sorte. foog ñu jàppale xale pour nu réussir benn xale yaa fusul benn xale niru dafa dee xale bu am jàppale rek mën na réussir donc loolu dama ko gëm da tey sot ko parce que dama ko dund looloo tax xale bu ma gis rek damay jàpp ni war nañ leen jàppale vraiment nu dem de l'avant euh, di invité ñëpp Sénégal am nañ jeunesse bu formidable il suffit juste ñu accompagner leen jàppale leen pour vraiment nu am résultat yi ñu bëgg ci ñoom